waaw caabi te am caabi bi wala mu bokk ci amee caabi bi ak buñ ko yaa ngi koy te Ahmadu Bamba radiyallahu anhu kon jaamu jaamu waxtaanu ci yàlla te du jaamu waxu jaamu mooy ki nga xam ne dafa roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba doon ko ci zahir ak ci baatin li tax ñu ne roy adduna bi dara def ko suñu soppi loolu ci nag am na sabab boo xam ne moom nit ki di jëfandikoo jëfandikoo xel jëfandikoo nii jëfandikoo njàmbaar jëfandikoo wuuteeg bànneexam jëfandikoo doyloo yàlla ak ñooñu ko ba àgg fa ñu jëm bu gën a manqué ci yooyu bu gën a soppi taalibe bi nga xam ne dafa ne saa yu bëri ñu sëpp yi dina waxam jox sëriñ bi nga sëpp yi ñu dina waxam jox liggéey yàlla la jox ruuxam ndax su ñu jox ruuxam dafa ubbi buntu bi yàlla ba mu ubbi ko mu ubbi ko xol yi mu defar yëpp xol yi mu defar na mu leen defar mu ne defar ci baatin defar leen ci baatin mais rafetal seen melaw waaye rafetal seen melaw baatin boo xamoon kenn ñu mu yaral boppam xam ne xol bu feesee ak yërmande yàlla fees ak xam yàlla doom làmmiñam day yar ay cëram yar xolam dëgg yàlla am jëm yàlla boo xam ne dorogal lan la yan ak lu mu ngi rëy rëy rëy daf koy jëlee ci borom lu mu bëgg bëgg bëgg mbir bëgg de daf koy jëlee ci borom ndax day xam ne boromam am na lu gën yépp lu mu doon te fay da muy fay ëllëg moo gën lépp bànneex boo am ci àdduna bi nga xam ne nag suñu borom daf koy jaay moo ñu ëpp ci àdduna te ki ñu ne di am istihbaat maanaam suñu borom dafa ko ay jàpp ndal ci nelaw xolam ak ci ay pour ak dogoom waaye soxla rek mu sonn tool boo xam ne buñ ko feesee mooy tax mu am la ko am buñ feesee yonent bi nga xam ne dañu ne moom suñu buñ awal dina war aasiri la lu mu daj ak bu juróom benn fukki at ak ñett ñu dund nga xam ne mooy jiitu bi ko daataan ñenn ñi xam ngeen ni di wax dugg fan la ci moom la ko soo dafa daan dem dëkk suñ boo xam ne kenn ñëpp koy yóbbaale tuuti yóbbal nekk sa di jaamu boromam te suñ borom yóbbu di ko xamale di ko ne yaa yenn ñu ci xeet bi bis ba mu gisee jibril nag xam ne keroog moom la ñu yéen ñi ci xeet yi te la fitna am tàmbali fitna am tàmbali ñi ko topp ñëpp seen fitna tàmbali di def ñoom desin wu nekk desinoo dellu gannaaw ndax jëmm yooyu dañoo wax man te suñ borom xamal ñoom seeni jaar jaar ñuy jaar ba duñ fi jóge xam nga ñun duñ fi jóge yi tolluwaay yi ñuy toll ba keroog ñuy àtte doomu aadama yi ci jënd ba sëriñ bi da koy jéem a roy di jéem a def lenn tudd wax ni ko li mu tereel mooy ci ko gën a jege day defar kooku lañ njëkk a defar day matal kooku lañ njëkk a matal ba mu mat ndax kookaa ko gën a jege ci baatu yi dañ koy baax xam nga ne moom wala ko dëgg moom bu ñuy sànq benn xeet yi bët ci bi yoo xam ne ngir man ngir man yàlla la waaye bu ngeen seetee ne li mu njëkk a sonn mooy xamal nit ñi seen diggante yàlla nañ koy jaamoo dund téere yu bari ci tawxiid dund téere yu bari ci faq dund téere yu bari ci tasawuf dund ay leetar yu bari woote jullit ñi ak murit yi yeneen képp koo xam ne ci ak ndesa mbir ci man sant naa la nga xam ne lii farata ci yow na ko xam ne ba xam ko te di ko jëfe man ci sama bopp war na naa dundal leen lépp ñu ngeen aadawoo yoo xam ne bu ngeen ko jàngee dëkk leen aadawoo jàng dara ngir ñu leen seen diine ngeen ko defee ba ëpp fi ma leen di jaarale ngeen jaar fi bu ëllëgee da ngeen am ci man sokel boo xam ne mooy li leen di xàtt ni ëllëg ba nga gën a ji nga xam ne yëpp yàgg na moom ci ko adaatul yàgg mu ne ci xoqa منها ارتياض مع الإنشاد قبلهما من جانب ظهور ما شقواته الاتياض مع الإنشاد قبلهما ما من التبحر في علم الشرع مع علم الحقيقة bala ngay soobu yoonu yàlla dëgg àgg ci moom li nga njëkk a xam lim la sant ndax su borom nee na sama jaam munu naa jéem a jege li dul mu jaare ci li ma ko sant mu def ko waaye du dañ di def li ma ko sant di ca dolli lu man ci lu baax ba ma nekk di lamiñam la muy wax di bëtam ya muy gisee di tànkam ya muy doxee di loxoom ya muy jëfe bu boobaa lu ma ñaan lu may ko ko lu ma jéggalee ma jéggal ko lu ma sant ma defal ko yoon woowu mooy yoon bi sëñ Tuba ubbi di ci jaarale jaam ñi mooy xamal leen li ñu leen li ñu leen sant ba ëpp mu xam ne itam ne murid bi ñeenti xaaj rek loolu dégg ngeen ko ba tàyyi muy ku mag koo xam ne képp ku ko askanoo nga meloo yenn melo yi tool yi bu réy réy réy bu ñu ne kii de murid la bu di jëf li ñu tere wala sàmmoonte wala sharia kon ci yàlla ba xam ci gis ngeen ak yéen ñu gën a rëy boo ko fekkee da ngay def fexe ba jëriñoo da ngay jëriñoo mooy dañu ci waat ndax gannaaw li ma waxoon ne mooy gannaaw yi tuur ba lu noonu yu bari bari bari di tiit di jaaxle di gaaw gis bu ma alquran xam nga sëñ Tuubaa nee na ko loolu def na ko alquran jamono yàqu buñ bi ak julit bi xéewal bi nga xam ne mooy xéewal bi gën a màgg ci yàlla wàcce ko muy xéewalu sell nga xam ne xéewal la sama alquran alquran ëmb lépp luy jaadu te war a ñëw ci àdduna war a ëmb lépp luy jaadu di yéene nañ mbiru jaam ci seen dëkk ak seen nekkin ak seen melaw loolu lépp soo ko gisee ubbi lu xel ndax xel dañ la gën a xam ne yàlla jox na ko ko dafay làmp boo xam ne ci kanamam la nekk lépp lu ñu def ko war a jàng ba xam ko bu xamee na mu demee ndax boo ko dee xam na mu koy jëriñoo boo xamee na mu koy jëriñoo xam fa mu koy jëriñoo boo jiggee bët jaadu lañ war nga jàng bët jaadu dina mu mel ndax ci la mbir mi réew mi nekk ndax doomu aadama ci ñàkk xam wala ñàkk meloo ak teggin dana jëf jëf yoo xam ne parce que loolu jëf jëf dana ko jikkal da ko loo ci sukuraat da ko loo ci sukuraat ba nga xam ne dafa jëf ne ci àtte adduna àtte àdduna ci àtte barsax ay jëfam dana teew ay jëfam yu ñu njëkk a gis jëf yi nag am na jëf yoo xam ne soo xamee teertoo borom xëccal ko ngir mën na yàlla ak leer nga jëriñoo ko ñun naa ko suñu waxtaan ak loo xam ne sama diine wàcce la te suñu borom tabaraka wa taala sant Ibrahima mu woote dafa woote ba àggale beneen jëmm bu bëri muy indi xam nga ko suñu borom rabbee daf ko sa dafa ñaar suñu borom kàttan suñu borom may ko kàttan moo ñu jógee ci mbindeef yi moo ëpp kàttan ci mbindeef yi mën a teewaloo ci julli jërëb su gën a sonn ci penk ak su gën a sonn ci sow mu teewandoo ko benn yoon moom ak ay sëtëm ak i surga te bu liggéeyee mu dul yàq waxtu yoo xam ne jëf na jëf lu baax mu taxaw ne la jaxas sa xol la la indi leneen loo xam ne nii mooy fukki sa xol wala sàkkal ba doo jëriñoo nax ko ci boppam gannaaw ñëpp a jëm mbooloo rek waaye ñii dañ koy jëriñoo ñii gën a say bàkkaar rawat na gërëm gërëm bu mu doon kon képp ku mu doon lu fi jóg ay xaaj la di yoo xam ne xaaj bu njëkk bi mooy ñii jëriñoo mooy ñi am lépp la koy muus xaaj bi ci tamit buñ ko jëlee dara bàkkaar bi ñu ko toog te xaaj bi ñu jëlee mooy ñu koy jëlee bàkkaar moo taxoon na nit bu xelloo fu mu toll dafa war a tax kooku yàq rek ndax mbir ma ko laaj mbir bi doomu aadama moo waral moo laaj ndax kooku yàq rek ñun doomu aadama laaj ñu xel mu dal doomu aadama doomu aadama laaj ñu foo toll di bëgg di wax saa sa adduna ba ci béréb ba nga xam ne ci nga waroon a tene bee sa adduna comme ni sa xol jëriñu tuuti mu jëriñ la ëllëg bokk na iblis bi nga bokk Sëriñ Tuuba radiallahu taala anhu nee na bi am na mu waxtal mamaati yaa fi chahdan bi ka yaa ko saa nee na bu moonu mukk ca xam seytaane fépp roo gi tàqalikoo gu la dëglu bi laa taamanu maqaida cheytaane qabla firaaqi rooxi min abdaari wax nag lenn ak waare bu dikkee ci mbooloo nit ñi ñii yaj lañu dara du ca dugg ñii ndax li ñu dëppee yu moom dara du ca dugg waaye bu tooyee ba war a taan dana tooy ca biir waaye dara du ca dugg du ca dem ñii tax lañu yaj boo xam ne dañ ko bënn lu dikk dugg ñu ko dootu génn mu dellu ko misaale ne ni suuf nii montagne la boo xam ne ndox mu dal bari ci suuf lii béréb bu tànn la day ñiir ñu mën caa ji lii xur la boo xam ne day defe ndox ma ñu di ko jëlee ñoo ko xaw yàlla bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax du naan nit waaw jëmm joo xam ne daana jaamu yàlla am na sëriñ bu mat sëriñ sa jiin la def wala mu amul sàggan ci biir jëf jëf ji tax bu demee bay toll ci sikkiraat suñ borom dal di xeram dal di sikk baaxu sëriñ ba mu dee xaale ñàkk koo gëm baaxu sëriñ ba ump ko la mu jëf jëf yoo xam ne moo ëpp digg ba lu ëpp mu jëf ci yaakaaru mu toll sikkiraat première jëf ji tàmbalee feeñ beneen jëf bu ko gën a bu ko gën a rëy te ñaaw puisque dox ci diggante bi seytaane ak malaaka yi mbugal làq ci takk lool yooyu ñëw bu xëttiwu nga takk faram ne ci loo xam ne du musul nit bu rafet boo gisee bu nit di faatu ñu sopp nit toog ci wetam di tudd yàlla dañu bëgg xolam mujjee yàlla am yaakaar li tax ñuy wattandiku nekk ci loo xam ne bëggul la dee fekk rek mooy bu ko sallallahu alayhi wa sallam waxe yamuutu maru ala ma aasha an nit ki ci lim dul rek lay dee maanaam la ko dee fekk melo woowa lay nekk ci bàmmeel te yow yaxsharu maru ala ma maata alayhi bu yamataar nit buy jekki melo woowee lay jekkee kon nag man woowu mat nay seet mat nay xalaat doomu aadama bu fekkente ne ay jamono la am ci jaamu yàlla li ci def lépp lu ci ëpp mu ngi ko jëlee ci adduna ak yeneen yi def bu amee jamono joo xam ne mën na faa toog ci biir bu gàtt ba jóge fa suñ borom tegal ko pexe ji ba faw boo gisee ñu naan riban fi ay di soxtin war ni dana am ngërëm ba noppi mu jëf sox moo def ñu yàlla mere ko kon am ngërëm doyul rëddal bi ay soxti mooy li am solo mooy ngërëm loo xam ne ak pexe bi du ñëw gannaawam mukk merom yàlla du ñëw gannaawam mukk te buñ ko waxee muy tax ngërëm di àgg ci daraja joo xam ne lu dul ngërëm doon ca mën a topp ay daraja la ndax bu ñu am ngërëm rek yomb na waaye am ngërëm du fa ëppante ay daraja yi daraja la dem ci alquran ala kulli awliya allah la xawfun alayhim wala hum yazanuun wàllu yi yàlla yi duñu ragal ñu tiit muy fii muy ëllëg dara su noppi sa dëkk ba nga bëgg ko ndax yàlla day teew sa kanam ak buntu yàlla bu nga xam ne nit dina toog ci guddi tapal leneen lépp lu mu doon ndax nit ki bu fekkee bu ëllëgee bëtam bii lu mu toll dañu dara ko liggéey dañu koy laaj tànkam yii lu mu doxoon loxo yii lu mu déglu woon biiram bii lu mu ci defoon lan yii lu mu ci waxoon yëpp yoo xam ne jii moo mën a xar mbind moomu ñu bind ci cër la ñu nga xam ne ci la waree waat def bépp cër boo mën a jëriñoo ci ak xeetu mooy moom ca mooy ak daraja yu mooy ga ak sabata mooy ndax yam nga ba ci ñàkk fayam daay wala yaa ko ci sama def boo ko waree lépp daal ko bind bu ëllëgee boo duggee ci bànneel itam lépp dañ ko bindaat ndax doomu aadama jiy dund ak biir xolam bii tey ci nekk boo xam ne lépp lu def bind nañ ko ci moom nag du ko gis ndax adduna bi ne ci kanamam moo tax du ko gis waaye gis boo xam ne moom bi rot na tey boobu tey xool di bind ci tàngaayam nga xam ne tàngaayam lii mooy kay bi mu war a bindee keroog ba mu juddoo jooy ba mu jooy ba keroog bii sax ruuxam bi daa ji mooy daf yi tam yi xalimam bi mooy baaraamu sànnikaayam bi ci li nga jigéen ñi moo ko waral ñu bind ko ci tàngaay bi ñu bind ci tàng tàngaay bi tax mu xam ko tey la boo xam ne dañ ko bindoon ci xol bi te bu ko waree ko gis nag bu leer bu nga xam ne bu ko am ci ci sàkk wax bu ko yëree day daal yow nag gis bu muy jëf loolu ak foo ko jëfee woon ak nam ko jëfee woon lépp day daal di yow bu am mel ne koo fekkaat nga def cee jaar di ko jotaat loolu lay mel ci moom ngir nag mu am jamono boo xam ne dana am xeetu jëf boo xam ne da tax loolu lépp concours boo mel ne mosuñu jaar jaar nga xam ne bu ñu duggee ci bàmmeel malaayika mi laaj ñaar malaayika mi laaj naan mu tëdd nag kii seen tubaab ko wax ci malaayika ko nii laaj ko wax ci kër moom dara muy ñaar malaayika yoo xam ne malaayika yi bokk ci ci da tax ñoom ñëpp dañ leen ragal kenn ñu wóolu mbindeef yàlla bi yëpp ragal nañu malaayika yooyu la nga xam ni seen melaw yi ñu melawoo doomu aadama yi jinne yi malaayika yi ñëpp ci muslu ñu ngi ñëw seen melaw ak seen bët yi mel na nan melax boobu nga xam ne dafa mel ne dafa dugg ci dëgg sax mu ñaatee seen kàddu yi mel ne dëgg boobu nga xam ne bu dawee day mel ne dafa dugg ci sa nopp ñu ak seen ndëgg bi ngeen di ko gëtt ak bët yi ñu anak yàlla ci yàlla mu def jaam waxuma loolu waaye suuf ba mel ci boppam li ñu sañ li muy sañ ci lépp ngir mu ci tuub ndax yàlla ci sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne di nga xam ne roq yëpp baax na bu teew ci bàmmeel bi nga ku am moom dara ñëpp lool mu am na am am njàqare am tiit donc comme yaa ko mu ree bi ñu ko laajee war a te ñaari melo yi moo di jaaxal ñi nga ànd woon mel na ku am njàqare tiis am yàgg nga mel ne ku dëkk mu ngi nga xam dama fàttali ko dama dem dafa daal di dem ci nekk bi nga xam ne moom la bàmmeel di nekk mbindee wax mu ko suulee léegi ma ne ji ma am ci sama doom ji moo waral man nga njàqare loolu ndax doomu aadama wax mu ko dugalee ci bàmmeelam ka wut jë jóge ca bàmmeel bi bu doxee juróom-ñaari tànk moo néew yi ñu dégg ndax dañuy delloo moom ci moom dañuy sax moom delloo boo xam ne du bokk ak delloo dem nekk bi mu nekk woon moom ci adduna bi ndax delloo booba ba di rek ngay yëpp moom ngay gis moom ngay dégg waaye doo koy gis saane doo koy gis nit ñi doo koy gis ñam doo koy gis safara doo koy gis lekk jam doo koy gis waaye mbiru baat bi mu ngi say jëf ak say gar léegi mu mel ne da ngaa jóge ci adduna bii dem ci beneen adduna boo xam ne lii xaw fii yëpp dara amul ko yaa am foofu yëpp dara amul ci fii mu ne bàmmeel moo di bàmmeel penc na ko penc boo xam ne dana xaar xaar boo xam ne ku dul doomu aadama di ab jinne dana ko jóg waaye picc yi naaw rab yi dox xar yi bëy yi nag yi ñëpp a koy jóg mu ne nag li nga xam ne nag xelam dem na ci loolu mu daal di am naqar ndax yéen gi mu yéen doomu boobu te seen doomu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dañuy wax de ñu ñaan boromam ba suñu borom musal ko ci loolu rek ñaan tañ ko bànn borom bu ci kenn doo mucc saa bu mu ànd dana ci mucc te saa bu mu ànd mooy nga xam ne sama ko mu deewee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ah jaay na ngir fàttu saa bu mu ànd mu ne bu kenn doo mucc tañ ko bànn comme saa bu mu ànd nga mucc koo xam ne l'islam bëgg na ci yow asamaan yi juróom-ñaar bëgg ci yow suuf si bëgg ci yow ba koo saatoo ànd di jaayu asamaan yëpp ñu waajal leen malaayka yëpp ran sàttee di teeru sagroo te mucc loo ci sancaayu bàmmeel borom sanc boobu ndax day xalaat lu mu baax baax war nga xalaat loolu mu ne leen suñu borom tàkk na ay jëf ak i jëmm yoo xam ne dana tax nit ki mucc ci pencu bàmme boobu mucc ci laaj te malaayika yu rek yooyu leen te ay jëf dong lay doon ci jëf yi ndax jëf ji war jëf am na lu mu mën a jëf ak lu mu la tàkk ni sa dund gi ci àdduna nga xam ne boo doon lekk rek te naan loolu da nga mujj dee boo doon naan rek te lekk loolu da nga mujj dee boo doon lekk di naan rek te nelaw loolu da nga mujj dee mi nga xam ne ni ci àdduna yaram laaj la yu bari te lekk mu jëm nam bi naka moom yow ak yaram jëf ci nit ñi noonu la mel te ci ci nekk ak doom féete doomu aadama bi moo tax jënd jëf mu mu la xew bu ñu nee ak jataay boo xam ne boo fa nekkee dañuy fàq bàkkaar di la dundal ay tuyaaba tuyaaba yoo xam ne jeneen jëf mënu koo yàq dañ ko jóge ñeent ci guddi ñu yëkkati xarima bi ci yow seen bopp la dundal benn bàkkaar sama jataay yu mel nii boo fa teewee war nga dellu sa xel ak sa xol lii tax ñu xañ la leneen yooyu lii tax ñu xañ la ko mooy lii tax ñu xañ la ak texe yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ñuy jàng alquran bu ñuy wax nodde bu ñuy wax xaddi di fa waxtaan wala takkal di dem ci leneen lu dul yàlla wala loo xam ne day yàq wax ja wala mu ñu ko tooxeel day yàq sa jëf yi nga jëfoon yëpp يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. بنزاع القرآن جلوا تستخل جلوا تستخل جلوا تستخل في أدنى شيء جلوا بقعة بقوة. لا تعلم تنقص بعد القرآن موت الأجر. leer alquran moo la leer jëm ci yomal xiyaam nga taatam sangat suñu borom fas sa bakkaar defal la yiw woo xam ne dootoo tàggoo moom mukk nii nodd nga noppi déglu ko ndax ashhadu an la ilaha illallah lu ñu wax ak ashhadu anna muhammadan rasulullah suñu borom tabaraka wa taala wax woo xam ne ñu ngi tëgg junñu na nii damay la ilaha illallah war na ci lépp luñ dox mu bàyyi lu mu doon def déglu ko ndax da nga yëkkati baax la boo xam ne wax nga nit ki yëkkatee baaxam ba ko baaxal yéen lépp luy mën a dégg ci nit nga dégg ko ñu baal la ñàkk fan bi nga ci dara ci bàkkaar lépp lu dul dégg nga xam ne jamaat la jamaat mooy lu mel ne garab yi garab yooyu la jur du ca lekk bu ko lekk yërmande yàlla mën na ko ci taxal bu fekkul nga jëf jëf ju tëj taxal fit boo xam ne loolu mun caa dugg waxu waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu di xadis ñu koy waxe xol yi taxe yépp borom dana ko ubbi ñu déglu xol yi taxewul seytaane indi loo xam ne dana dox seen digganteeg déglu ba loolee soxlaa leen ba ñu jóge fa mooy li alquran di wax gaa ñi nga xam ne ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرج من سوءك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبع الله فلا قلوب واتبعوا أهواءهم yow da nga ci dara sa bo tobe di waare boro bi tok ci yow wala ñetteelu xaaj bi ma doon wax buñ fa jógee seen kat bi ñu toogee yow ci dara sa man waare seen tala bi ci leneen loo xam ne mbiri adduna buñ fa jógee dañuy laajte wala ci dara bi doon wax sànq su borom nee na ñoom ñoo nga xam ne tax danaa seeni xol leeru yàlla di ci dugg yéen la di ci dugg waxtaan yi ci Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu man di ko yàlla manam may gi ko may yëkkati gi ko yëkkati fonk gi ko fonk doy loowu ko ba mu jàng nañ ma liggéeyal rek texe yemu ca yemu jaa jàng li déglu li may wax rek def ko texe dafa daan waare fu mu toll maatale suuf si laaj bi xayma fokk lépp lu wala fokk nekkee mu tasaare maatale di tomb tomb sa kaw di waale ba nga xam ne boo ko duggee sa xol wax ko. loolu nag naa ko woon ci bopp ndax ko daan def mag ñu baax ñi ma yaroon nga xam ne dañoo joxoon yàlla seen lépp ànd ak moom danaa ba mu ñu wëri ñuy génn seen xol di ko yeesal ci biir fàttali ëllëg rawatina nit ñi te dañuy fàttali rek sëriñ fàtt leen rek di jàppal day xaar kon doomu aadama muy dindoo ci xelam ba ma tàmbalee dama doon xel daan naa ne bu yàlla jox milieu bi moom lépp la bëgg a def nañ ko seet ndax lii njëriñam fu mu yem ndax ci aduna rek la yem bu yemee ci aduna rek ngeen ko muy farata wala muy sunna nga gis ko ngir loolu rek di jublu ca yàlla donte da ngay lekk sax boo seetee ni lii xëy na bànneex la wala jëriñ la loo xam ne benn daganul nga teew mu ne bàkkaar bi ma ciy bindal tey danaa ci jóge fàtte ko man waaye bind nañ ko te bu ëllëgee mën na maa yàqal lu rëy ak kat nit ak pexe dem li ci ëpp mu ngi jóge ci nit ne moom ndax nit shayatin ins wal jinni la alquran wax seytaane yi dañoo ne ci jinne yi nekk ci nit ñi nit koo xam ne boo àndee moom wala nga toog ci jataayam dëgg lay doon ci gën ci àdduna nga xam ne suba lay deewal ci guddi gi nga nekk seytaane la ma nga lay sàbbul ak pexe bi jëmm joo xam ne danaaw xëy boobu mu lay xéewloo ci àdduna daf lay xéer ci loo xam ne lii bu ëllëgee nga rëcc ko nga war a jiital sa xel seet la lay jëriñ ëllëg ak pour ñu gën a gàtt la ndax dee bett yi muy bett moo war a mu gën a doy waar ndax ci ngeen waxtaan xam nga dañ ci jóg mu jël te bu boobaa sa jëf jeex na doo doo loolu ñu am ci sa sa waxee rek ñëw ci bàmmeel mu ngi mel ne ku la ci géej sa pexe bopp jëriñatu la dara yaa ngi dégg rek ku la soxla dina sama néew bi ku ko ñaan rek ñaan nga fekk ko fa waaye dañu jëfoon ko jëf yi jeex na jëf ko ma ne nag tey ku bàtt ci koy askanoo pour askanoo naa mën sama sëñ di jëf lu tax nit ñi umpale yoonam ni wala ñu umpale liggéey bi mu liggéey wala ñu ne ay caaxaan la yaa ngi koy tooñ te bu ëllëgee dañ ko rëccu mu nit dafa war a boole sharia ak àq tam ko sëñ Tuubaa ak digle dina leetal yu bëri te leetal bu ci nekk la muy njëkkee ñu leen seen borom digal na ngeen ko def ñu leen tere ñu ngeen ko bàyyi ngeen noppee nag sàkku yërmande yàlla ci jëmm ci yàlla gërëm ba noppi dëgg la yow la ñu ngi koy faral di misaale rek naan ñu naan ne mu taw nga bëgg a jiitoo gis ba ba mu yor nga jóob bor ci boo ko jee toog war ba am ci tay ba am cere ba lépp yàgg na nga ci dund nga toog nga am leneen wut mën na koy bañ a xaj te mu yoroon naa dox ci diggante bi te nag dafay liggéey boo xam ne du yomb a yàqu ndax seytaane mën na koo yàq bokkam mën na koo yàq bëgg adduna mën na koo yàq bànneex mën na koo yàq nga fekk nag ci def yooyu yëpp ba feesal sàqam togg ay ñamam ba noppi nga sàkk ko ci moom mu ci jox la mu la doy moo gën a yomb donc ci am ngeen mën yàlla mu koy ci nga am ngërëmal yàlla mu koy ci moom ngërëmal yàlla moo gën a yomb yow sa bopp nga jox dëgg soxla ko ba tey aar صلى الله عليه وسلم لم يدخل في شفاعة رجل من أمتي بالفرات أتاه موتا من يفعله مطلع ويب أقتل ويب بل من كتما سابقنا دانا قرام يوم القيامة رمونا يقول السبب في جدل في نت أكتمون رمو الوقت ndax danaa am yoo xam ne seen jëfale ni jàll la seen lu néew la ndax yonent bi sa rasul wax ñu ne ma ak Isa ñu Mariama bu ko borom tàkkee lu ñu def kon wala kon rawatina keneen kon jaam na waaye yaakaar mooy yërmande yàlla yërmande yàlla ak ngërëmam war na ko sàkku ci adduna ndax moom doo nga mën a dox sa diggante ak nit ñi ndax iblis kenn tënk ko képp ku yàlla bàyyee moom bañ a dox seen diggante naka sàkku ci adduna ndax moom doo nga mën a dox sa diggante ak nit ñi ndax iblis kenn tënk ko képp ku yàlla bàyyee moom bañ a dox seen diggante mu daal lay sàkkal pexe daanaka misaal mbirum ba am ak bési salaam yu baax war waxtaan nañ ko ba tey ak bési ba ci nit ñoo xam ne moom bési àggoon na ci bu téenee xool asamaan jàlloog arata bési te mujj na yéen ba gën a bon ci yéefar yi balaa dund baax war dem te soo dem nit koo xam ne ku am doole la woon ndax jaamu yàlla ba am ay leer ak lépp waaye gannaaw yàlla moom amul kumpa te amul tey ak ëllëg lépp la jàngaloon na te jekk xamoon na kenn ku ci nekk fa ngay mujj ak fa ngay jaar mu mel ne xew na ba noppi te kenn ku ci nekk ndax yàlla moom laa yëkkal raw na tan ilaa wax aha lu nit ki man rek la koy sant waaye nag li nga mën loo ci wàññi rek ak xam na ko kon nag jëf lu la fexeel ci topp yàlla lu jafe la ndax li ngay def xamuloon nangu nañ ko wala nangu woon nañ ko imaamu Xasaali nee na doomu aadama dana sujjóot nitu yàlla dana sujjóot sujjóot boo xam ne dana ca teewlu boo xam ne bu sujjee dana defe ne am na maqam mu kawe ci yàlla fekk am na ca bàkkaar boo xam ne fees na asamaan yi ak suuf bi kon ngeen xam ne suñu borom tabaraka wa taala li ciy àggali nit mooy toroxlu ak xeeb sa bopp ak sàkk ngërëmam ñett nañ ko ci waxtaan yu bëri wane na suñu borom xamle na ne jaam bi li muy jëf lépp jëfalu ko dara bopp la koy jëfal ni mu ko mënee jëfal mooy ci fekk waa ji mu fonk mu fonkale ko ko ndax moom kon ci nit bi war na bëgg nit yàlla yëpp ngir yàlla jox ñu yéene leen ko teg leen seen place ndax nit yàlla ñi kat ni ni ñu demee ñoo raw ñaar ñu bokk ndey ak baay ñoo raw ñaar ñi gën a xaritoo kenn ku la ci mel ñi ci def ñëpp mel la mën nañ cee misaal misaal yu bari boo xam ne yu leer la yoo xam ne suñu borom bëgg leen bëgg daf leen def ñoom seen bopp ñu bëggante bokk yoon wu ñuy jaar laxasoo ba nga xam ne lu ci kenn yëpp ka ca def def ko ñu naa ne nag su matee dëgg dëgg dëgg du ñëpp a cay àgg waaye su parce que su matee borom bi daay gi leer gi ko yàlla jox day gëmbaloo yow yonente bi tabaraka wa taala sallallahu alayhi wa sallam ak bu alxaqiqatu muhammadiya nga xam ne moo dox diggante mbindeef yi ak yàlla nga xam ne amul dara lu mën a jóge ci yàlla jubal directement ci mbindeef yi mbindeef yi mën koo attan mën koo dëkku ci àdduna amul lu dul mu jaare ci alxaqiqatu muhammadiya nga dem sayidina jibril sax ñu indil yonente bi alquran mënul a jële alquran ci suñu borom tabaraka wa taala directement ñu koy jëlee ci alxaqiqatu muhammadiya alxaqiqatu muhammadiya dañ koy jëlee mu baat ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dëgg dëgg dëgg bi nga xam ne dafay mbirum yomal xiyaam baatin boolee la cay jógee nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sax fii ci àdduna xam na ko waaye wanewuñ ci dara indi feeñe luñ ci dara alxaqiqatu muhammadiya muy daraja yonente bu mu doon muy law bu mahfuus muy malaaka muy xejjul yàlla bu mu doon buloon alxaqiqatu muhammadiya benn fer ñeent bu jóge ci leeru yàlla rek bu dugg ci taxaw nga seey fa nga nekkoon seey la la la la tiimoon seey la nga toogoon seey nga ko fekke woon seey jaar gi muy jaar ci alxaqiqatu muhammadiya moo war a ñu naan alxadratul ahmadiya mooy foofu nga xam ne amul ñaareel bu ci bëggee ci alxadratul ahmadiya nag soo ñëw ci alxadratul muhammadiya foofu nag la ko jaam ñi mel ne que jibril la ak yeneen yonent yeeg yeneen wàllu yi bari dama jóge alquran foofu lay jóge te ba ñëw lox mahfuz di dàq nag xew xew yi di ko leeral xew xew bu nekk nga xam ne nam softaloo bopp la comme ni mu wàcce sëñ Touba nee na nag moom alif laam mim suñ borom ni ñu ko ko firile moo di alif bi aw rat sukal kitaaba doon nu loo naa la téere bi téere bi day lu rëy la lu diis la xam ngeen ne sakaral ñëwul ci adduna de ndax alquran wax yi suñu borom ci boppam tabaraka wa taala kon aw melo la ci melo suñu borom yi ndax lenn melo ci melo suñu borom yi suñu borom ne laa ko dëgg ko lëpp taar waxoo yu dëgg ko ak taara bépp di gis yàlla lu koy gis leeru xol leeru xol la muy gis ndax suñu borom dëgg la déedéet ca melo wa mu meloo tabaraka wa taala lenn mënu koo dëgg du lenn loolu tax sëñ tubaab bi nga xamee ne radiallahu anhu waataan naa wante woon nañu ci nax yi boobu biñ ko laajee dafa ne leen ku xamul jëmm yàlla de nu mu demee doo xam ànd gi mu ànd ak bindee bi na mu demee kon te waxtaan ci loolu dañu nekk jëm na ngeen bàyyi loolu na ngeen bàyyi loolu te ngeen ko fële te bu leen ci wax nga gis kon nit ki xam yàlla dëgg dëgg dëgg moom lu mu xamee yàlla na mu xamee sax nit bindee waa yoon ci yàlla ak comme ni ngeen dul ànd su borom bu fekkoon ne sañ sañam bi war nañ ci benn per ñeent mbindeef mu ne da nga jàpp ne yow kat safara ci nga ndax suñu borom tabaraka wa taala ba mu bindee àjjana ba noppi dafa woo Seydina Jibril ne ko demal sax seetal ma àjjana ba xam noo ko di def bu mu xoolee bu mu jigee àjjana xool gis te foofu la dafa ne suñu borom giñ naa ci taala gi ne amul benn mbindeef muy mooy àjjana ndax lii ni mu mel ku ko xam rek dootoo noppalu fàttalu ci jaamu yàlla ngay dëkk sa loo def leneen lu naqar yàlla suñu borom daal di fàtt naqar yi ak métti yi ak tiis yi wërale ko safara ne ko leneen nga seeti ko léegi nag jibril dem ba gis safara gis tiis yi ak naqar yi ak métit yi bu génn si la sa borom dinaa ci sa mag bi ak sa kàddu nga gi nag benn mbindéef bi nag àjjana ndax yii nag te yii fii kenn mënu koo moom dañ gis ne kon àjjana bala nga fay dem ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne xoppati jàllati bil makaari àjjana ay naqara koo wër ak nit ñetti ak kii kon jëm ni joo xam ne jàpp nga ne rek da ngay nekk ci àdduna ci teewul dul sa àdduna rek bu julli jotee nga julli bu war ko nga war rek yem ca te jàpp ne mbir mi noonu la wayante te jàpp ne buñ la teg fii foo xam ne da ko war a mun jàpp ne yàlla du la mën a teg naka woo xam ne da nga def siiw génn àdduna jàpp ne doo sonn coono boo xam ne ngir bëgg mucc ëllëg rek lay tax ba nga fàtte lépp loo amoon ñu nga jàpp rek noonu la yombi nga déglu shayaatinu lins mooy seytaane yi ci àdduna bokk ci nit ñi di leen ko yombalal ndax mbiru nit ñi waru yi nga xam ne noonu lañ ko jàpp daal di waru ku jàpp ne mbir mi noonu la yomb da nga am ëllëg mbett moom bi nga safara woo jibril dafa demal nga seeti ko ba ko jibril jubee ci yoon ñaar ci junni at ci dox wàññi ko ne su borom ji ñaan sa tedd gi ak sa màgg gi nga safara kan bi ca dem ndax ko xam ni mu demee doo def ñëpp la ci yóbbu te da nga def lépp loo xam ne dana tax doo ca dem su borom fab bànneex yëpp wala ko safara ni ma demal nga seetaat ko Jibril daal di dem gis bànneex yi nga xam ne moo war safara lu la neex def lu la neex wax lu la neex dem doo ittewoo lu dul sa jëmm ji na mu sete na mu sore lu rafet na mu dëkkee fu fu rafet na nga lekk lu neex ak noo ko mën a amee foofu loolu dagan ak lu daganul foofu loolu adduna ji lu gàtt la te da nga fi jóge te xamuloo tey la wala ëllëg bànneex yooyu yëpp mu war safara gis naa ci bi ko gisee dellu bi dafa borom gis naa ci sa mag gi gis naa ci sa teraanga gi gis naa ci sa kattan gi na safara ñu kenn du ca mucc ñëpp a koy def ndax bànneex yëpp moo ci biir safara yonent bi salaa sallam ne xoppati ñaari bi shahawaat yi safara feet ñu feet nañ ko ak li bànneex ay bànneex rek a ko feet mu dellu ne ak dunia sëñ moom ñu nga jàng ci kaat yi adduna mooy jëmm mooy kato ku gëm yàlla te mooy àjjana yi képp koo xam ne kii weddi nga yàlla bu fekkoon àdduna suñu borom bu ñu ko fi indee indiwu ko ngir bànneex ndax ba mu bindee roo yi te bindagul jëmm yi dafa jàll ak ñoom képpéer bu sell bu fekk roo ba ba xam ne boromam ndax jëfee bu la ñëwagul àdduna jëfee bu la di yaram dara su borom ne ak su borom ko ndax du ma jëm borom booba roo xam na boromam ñu daal ne bala xakkay yaay suñu borom suñu borom xool leen da nga xam ñi nga ci xam ne dañ koo wax te tëyuñu ko am ñi nga xam ne dañ ko topp ba ñu ci def rek dégg ñu di ko wax ñu wax ko am ñi nga xam ne xam nañ xamul wax nañ ko waaye xamuñ sax wax nañ ko mu jël mu ne leen fen ngeen mu bari ci yéen fen nañu daal di fam nag mu dugal ko ci yaram indi ko ci àdduna xamal ko bànneex xamal ko wan ko lu teew ni mu neexe xamal ko ne li mu leen dig lépp ëllëg lu ñëwagul la dafa yàgg dana bu fekkee ne sa ngëm foorul dana yàgg ci yow ba ngay ne da ngaa gëm ni du àll ci mukk ngay jëf jëfi koo xam ne kii dañ ko ne li ñuy wax lépp dara amul ci ëllëg amul àjjana amul safara amul nga fàtte loolu ba mu doyee di ci sa xol wala ci sa xol ba doo ko fàttaliku lu dul lu néew a néew a néew ba nga xamee nag suñu borom def na loolu ne leen maa ngi leen di seet nag ba xam li ngeen waxoon ba man leen ne ah béréb moom da ngeen ne ah kay yaay suñu borom ndax loolu dëgg la woon ci yéen wala déet ñu seet ñi gën a bari ci nit ñi bu mu bindee àdduna àdduna xaalatul xurwa àdduna di lu neex lu teey lu nëgëra mu wan leen ko ñu gën a bari ci nit ñi wala ko war nga naan yaa def jublu àdduna mu seet ne juróom-ñeenti kuréel yëpp def nañu mu jublu ci àdduna def na benn kuréel kuréel boobu itam mu daal di indi naqar yi ak tiis yi ak muñ yi daal leen koy teg ba ko defee ñoom ñu tëddali ko fukki xaaj juróom-ñeenti yëpp daal di wan gannaaw ñoo jub wan gannaaw yàlla ngir tiis yooyu ak métti yooyu daal di dellu gannaaw mais li ñuy dem jub dañuy caaxaan rek ñoom li bakkan ak loolu bakkan du ko fekkee mu def benn kuréel bi benn kuréel boobu mu ne waaw yéen su ngeen bëgg war naa leen àdduna ak bànnee xam faale wu leen ko ma teg leen fii ngeen muñ ko lu ngeen bëgg ñu ne ko yow rek yow rek lañ bëgg mu ne yéene samay xarit yéene sama jaam yéene samay nit danaa leen defal loo xam ne nii wax du ko dégg lan du ko laal bët du ko gis xel du ko xalaat wan ñooñu du muy nga xam ne nit ñi ci àdduna fàttewuñu benn yoon seen borom mooy ndax boobu buñ duggee ci yaram dafa feebar dafa tawat buñ koy faral di wax rek tawat boobu mu tawat moo tax muy bëgg lu bon mel ni ki tawat bay lekk suuf nga xam ne ku la gën a fàtt fan ku la faral gën a néew ak leer moo la gën a ñemee def lu dul noonu moo la gën a yàkkam ci ëllëg moo la gën a yàkkam ci bànneex moo la gën a fàtte ëllëg moo la gën a fàtte yàlla bu la ko xalaat bu ragal dara lépp lu ko neexal ci nga ko am ci yoon yoo xam ne dina duggee ci yàlla tawatuñu ngir gën ñëwoon la ñu defe ñu ko xam dañu xam dañu xamoon yàlla ak ban kan ban lañu banoon lu bon ba ñu roowee ba mu dugg ci yaram ñu mel noonu ba tey mooy yonent yi ak ñi nga xam ne tuuti lañu tawat tawat ji yàqal ñu lu bari mooy kumul awliya yi awliya yooyu nga xam ne yooyu seen xol ak nga ci jànloo jàkkaarloo maa ko suñu borom bi tabaraka wa taala ñu ci gënee ñu ci bu nekk léegi nag borom xol yi raag yooyu woon nga xam ne bi ñu liggéey ci xol dafa feebar ñu fàttal ñu xamoon dañ ne rek borom xam-xam bi nga xam ne dafa def accident ba bopp yi mu ñuul bi ñuul bi garanti xamati dara faaw ñu fàtt ko ba mu wér ba nga delluwaat xamati fàtt ko dam xamoon bi njëkk roo noonu la mel bu mu duggee ci yaram dafa daal di tëx gisatul dara déggatul dara la mu xamoon seen lépp ñu ne la mu foone jaar boo gisee wax yi di wax naan maa ngi fàttaliku bis ba suñu borom di wax anas ci bërëb bi nga xam ne booba réew yi rekk ak bind buy jëmm yi kooku bu boo xam duggee ci yaramam itam dafa am doole am doole joo xam ne yaram bi taxul mu feebar roo bi feebarul ma ngi gisoon doom bi buñ ko fàttali ma nga xam ne loolu tamit tubaab wax ne béy di wax dañu àjjaabani xam nga dañu sax dina am sax xam ne xalqi xalqi àjjaabani wax maa ko ma ana rasulallah bil xaqi sax dina am sax xam ne xalqi xaqi sëñ Touba Abdoulaye mu ne suñu borom wuyu na ma nangu na sama ñaan juróom ñaar ci junni ak sa junni bu ñu léegi ma ne ko wax ko xamal sa tool ndax nit ki xam mooy lekk waaye ki xam du lekk ki xam li mu wax lu tax mu xam ko mun naa la ci xam banque bi ñaataa ci nekk waaye moomu ko mu xam ne jiw moom mën naa bu ko neexee mu waxtaan ne jiw am na nangam jiw am na nangam mooy ñi nga xam ne xam nañu tëddee ba nga xam ne lu gars yi yàlla yi wax xam nañ li tax ñu wax ko waaye nag xëy na ak ñu jëloo la man nañu bañ a àgg ca ma taxu moom waaye duñ ko la ci mukk ndax xam nañ ko kon dégg gëm ñaar la te nga xam ne dafa xam ñu wax muy ci mu tegu nga xam ne bu àdduna bépp la di woon moom du ko la ci mukk ndax xam na ko ak ki nga xam ne dafa dégg rek gëm mooy ki nga xam ne dafa am ndëmu ñu wax nga waa bi charbonnier wax nañ la rek nga dem lëru nga ko jéem loo xam xam nga wax ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam aktaru ahli jannati al-jinn wa innama umira li ulil albab ñi ko bari ci waa àjjana mooy ñi nga xam ne xel yu gàtt lañ amee dañ leen wax rek ñu jëm ñu jéem xamuñu jéemuñu xam waaye nangu nañu rek leen bi noonu la wax dégg naa ñu ne daal bu dee alaxira nanga ma fi taw nangam boo duggee ci bàmmeel nanga ma nanga ma fi taw ma gëm ko jéem loo seet nangu dañu am lu ma am laaj lu mënu la am yooyu sa yónni ci gëm nga ko rek ñi gën a bari ci waa àjjana mooy ñooñu borom xel yi nga xam ne nag ñoo settal tal xam da nga xam ne leeru yàlla moo dindi seen xel ba ñu xam na xew mooy wa innama ilmihi li ulil albab mooy dëkke kër ya gën a kawe ca àjjana waaye ñi nga xam ne nag dañoo amee xel moo xam ne ci biir la leen di yemale ndax adduna bi ñu nekk ñi ci nekk bariwul bariwul du dara yàlla ñu ngi koy faral di misaale ci ci wax na la moo day dimension adduna bi nga xam ne matière la lu fi ne matière la am lu rëy am lu tuut nga xam ne lu tuut mu rëy fa ëpp lu tuut mënul xaj ci biir lu lu li mënul xaj ci biir lu tuut lu so am lu sol am lu jege nga xam ne dem fu jege moo gën a yomb dem fu sori ba yëpp amatu foofu bu jógee ci adduna bi adduna ba mu jëm loolu amu ko boo gisee yenn ci borom xam-xam yu mag yi ñuy sikki sàkka wala ñu naan rañaanam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gént la woon wala du gént wala nii la ñàkk xam la ndax su borom tabaraka taala ndax masalam na arab bu masalam masaama masalam fu pare ñu asamaan pare yooyu wéde masalam kiiraay dong la kiiraay yoo xam ne buñ ko mënee rek lépp ñu daal di jege nekk fii loolu rek la li nga xam ne noonu la malaayika yi ak jinne yi jaxasoo ñoom ci ay ñoom te du ñoom kiiraay gi nekk ci digal yi ñoom buñ ko doon ñaar rek ñu jàll ñu ñu jàll suñu morom yi naka noonu la kumpa yu bari demee kumpa bi nga xam ne nag gëm na li nga xam ne wax nañ ko wax dafa moom ak jëf bi nga xam ne ko def moom la nga kooku mooy aji texe mooy aji texe gi nga xam ne ni mu wuta alayhi salaatu wasalaam sànne yàq yi mu nekk jaam la nga daal di gëm ba nga xam ne itam ñeneen la xool mu daal di jant ci kanam ci raw na ñu daal di gëm ñoo ànd ak ñoom ak bëri seen ngëm nag dafay ñu ñu leen gën a dëggal ngëm lu tax ndax ñoom ba nga xam ne saa yu ñu tax ñeneen la xool mu daal di jant ci kanam ci raw na ñu daal di gëm Wala. Wala. Abul. Yang dulu tak ini dia dia tak tangan Quran yang tak liu tak kena. Dia kena awak orang kata kata. Ibu jatuh tak awak. Cara konsisten lagi belum datang awak tak bila roh tak kena roh tak kena roh tak kena roh tak kena dulu. Kau tak dulu kami kita kalau mungkin jatuh tak awak tak kena. Dia kuat orang dan tujuan sendiri negeri negeri di mana mana kita harus mulia lagi. Dia anu kawan temukan dia nyari ke mana lu buat kami buat yang dua anu mana yang anu anu mulai dia bagi dia bang. Mungkin kerja hobi mana dia berikan terus lebih Untuk beri pikiran pikiran yang tak menyentuh, ni balik nyom nyom tentang bangnya sembah begini bukan mudah saya ada ada ada sesuatu Allah. Tak nyom dulu ni dia kita jangan. Lalu mana
Bagaimana? Ini panggil lagi luar ke wadah. Ya amdan Allah alhamdulillah. Waktan itu nanti ini juga semua kan kena tidak nakal. Soalnya itu semua mereka itu tidak apa bicara itu rimba dan waktu dua. Maka ya itu yang sebelum kami ambil itu. Berarti kami itu akhirnya yang berasa. Mau dibuat jamu yang ada aplikasi itu. Itu ada yang kita. Ambil pun jangan ada sila